Assane Gueye ca stade maître Abdoulaye Wade ci jam ñaajo démb mbégte fu ne ci kanam yi fo sànni mbàtt wit mu tag observateur ne kenn desul démb rawatina artistes yi ku doxal jox sa morom président Macky Sall moom xar kanam nga wane mbégte gu ñu mënul natt ñi ñu duppee les légendes du football it di kàngami football yi woon muy ci Sénégal eh, di ci Afrique wane fa it ca terrain ba ne lu nu màgget màgget dese na nuy ngalaju yu jommal gune sur source aane démb xew wi borom la nurool borom la tollool di turandoo ba maître Abdoulaye Wade yéenekaay bi ne ngir sargal delloo njukkal président Sénégal Sall ba woon nag ci jaar-jaaram yu bari ci fànn wu ne macha allah président Sall di président bi ëppit lu mu tabaxal Sénégal yi jumtukaay tabax na jagleel taax mu taaru maître Wade taax mu taar ma d'accordloo ñépp ci àddina Gianni Infantino mi président FIFA footballab àddina bi ne stade bi yellool na dalal coupe du monde Patrice Motsepe njiital CAF moom yore footballu Afrique bi ne démb bëccëg gi bëccëg la guy dugg ci taarix ci Sénégal l'info ne Macky aux anges président foo nat dem ga wees na ko président ne li waral mu tànn maître Abdoulaye Wade népp trondoo mooy jaar-jaari kilifa gi yéeme lool ca wuute lool ci bépp fànn jaañe njaay di njiital kunos moom bég lool ci stade bit ay kàddoom ci l'info mu ne président Sall tabaxi jumtukaay sport bu doon ab jongante am nga bu yàgg médaille olympique le témoin wane ci xëtam bu njëkk nataalu président Macky Sall ne ko a jaaraama jokkonjool shukran albarka le quotidien gis ne démb ba bëccëgu fet la woon ngir ndaw ñi président Sall yi dige moom yeneen ni jumtukaay Sud Quotidien ne le coup de Macky dóor ba dal na fukk ak juróom-ñaari weeri liggéey ak juróom ak juróom-benn di milliards dem ca ci caq bu taaru ba ca jam ñaaju le soleil xëy photo stade ba ak la woon ca kaw naka noonu ci ëttub stade ba naka noonu it nañ doxalee xew ba kaay bi ne démb spectacle dëgg la woon la tribune gis ne démb askan wi ci boppam ñoo àndoon maase doon benn amul woon par parparloo wala péete Sénégal rek ko doon wax fu ne raaye réew mee ki màndargaam li ñuul nag nekkoon catal xew yi démb mooy bakkan gu fa rot ci ndogalu sunu borom bakkanu chef sécurité président bu Turquie wax su populi ne tawe taw wi nag démb ak sport beeg la mu dugal ci réew mi ci mbégte ak kontaante ba fan ak ba kañ la ci président Macky Sall di profito laaj la bu yéenekaay bi di wàcc bees le vrai journal xëy laaj le vrai journal ne démb réew mi du woon saf réew moo xamante ni lépp a ngi dox ndax ba tey mu ne njeexitee ngañaayu gayndey football yi ak stade bu taaru bi ci jam ñaajo donte nag lekkool bi ci boppam ci réew mi année blanche di at mu yàqu mu ngi koy yoo donte njëg yi te mu ngi taawee ko ko yokk ci marché yi le mandat moom laaj ba mu def mooy mbaadu dafa am ab yëgoo ca jam ñaajo diggante APR ak PDS wala ci gàttal diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade stade yéenekaay moom yem ca xew ba ni démb daal feet gu taaru la woon feetu xaritoog mbokkoo ci Afrique yéenekaay bi waxit ci jëf ju rafet ji nga xamante ni Sadio Mané jëf na ko maanaam jël ku bëb balom dooram teg ko ci biir musée Pape Bouba Diop record ne Sénégal dalloo na démb takkaay bu taaru lool ci yennikaay bi président Sall ne boobeeb takkaay di stade bi mooy doon léegi tañeeru gaynde yi ngir rëbbi fàddi ñëwaat ñu jeexale làmb ji ak sunu làmb kàddu agent ne Reug Reug Modou la bëgg wala Ama Baldé la mu bëggit ci làmb ji mooy def lu raw li fi yëkk yi ni def Sa nag mu ne ñoom duñu ko jël Reug ci boppam ay kàddoom ci sunu làmb mu naan ca bëre yëfi góor la. Le Ndiambour hôtel et résidence. dikkati naa xew day mënta rëy bu sunu démb bi la soleil yéene kaay ne ma ngénte nañ sunu stade de stade bu bees stade bu Sénégal la démb la ngéntali waaye riis na neex na 24 heures yéene kaay daal di ko ciy dollil ne ko Macky Sall day daal dinay dalloo stade bu bees bu mu duppee maître Abdoulaye Wade le témoin yéene kaay tegal ko ci ni ko yow président Macky Sall ci turu Abdoulaye Wade sénégalais yi nee nañ la merci ajaaraama njoko njal shukran albarka maanaam ci làkk yépp la sénégalais yi jaajëfalee président Macky Sall ci teraanga nga xam ne defal na ko Abdoulaye Wade daara Wade njaak fara Ndiack tribune yéen kaay daal di koy xamal ne Macky Sall day niki demb daanaka galaase na xol yi ñu daal di nag dundandoo ci Sénégal goo xam ne jàmm daal lañ fi nemmeeku niki démb amul fitna amul xët-xët amut ay ñëpp bokk bëgg-bëgg muy dara booba daal di yëg ca kaw couleur ya daanaka niki démb yéen kaay yi dee média bi ne ma moo dominé xew ma Sénégal moo daal di addu niki démb xol yi daal di féex nemmeekuwul fa lenn loo xam ne méngale nañ ko wala mu fay nuroo wàllu politique ko di xamal ma ne stade bu bees bu Sénégal bu jam ñaajo day dalloo nañ ko niki demb fukki weer ak juróom ñaar la liggéey bi daal di am téeméer ak juróom fukk ak juróom benn milliard ñu daal di ko ciy def juróom benn téeméeri million ci ay waxtu liggéey nañ ko stade boobee tur wa nag Macky Sall dippee ko maître Abdoulaye Wade Daaro Wade Ndiak Fara Wade Ndiak Gianni Infantino président bu FIFA xam le ni stade bi day jomb la dalal coupe du monde artiste ancienne gloire ñëpp ñëw démb ca ngénte la Dakar Times daal di xam le ni gars yi kay démb dañoo kontaan ba naan président Macky Sall dolli ñu Sadio Mané jël ballon d'or ba jébbal ko musée Pape Bouba Diop Macky Sall ne leen yéen ndaw Sénégal yi day bijou bi yéen a ko moom tamit seenug mérite la maître Abdoulaye Wade yónnee ab délégation parti démocratique sénégalais Sud Quotidien ne démb kay ay yàq tàmbali na caa am ba gendarmerie sax moo ci jot a jug Matar ba ministre des sports xam le ni tey jii day président de la république dafa woo ndaw ñi jàkkaarloo ak ñoom bokk mbéti gi ak ñoom loo ci mën ci dégg yéene kaay bi ne ma Sénégal day fi mu ne mang ca kaw ca njom la ca kaw Afrique l'info yéene kaay ne ma moo taxi tex-tex maree président Macky Sall day démb ba bég na rox ca dolli nag woowee soxna sa mareem boole ko ca protocole ba première loo ci mënti déggit moom Macky Sall moom mooy le bâtisseur mi ngi tabax daal le quotidien le quotidien dipeeko les jeux de l'amitié xam le ni it am na yeneen yeesal yoo xam ne ñu ngi koy xaarandi ci boobu le stade critique ne ma moo ne day démb bari na ñoo xam ne def nañu déplacement te ñu bari dugguñu l'évidence yéen kaay xamle ko ni niki démb daal lu dul yàqu xaalis lu dul tëgg ak mu mbaay amul woon demb ca stade ba millions yu bëri yoo xam ne yàq nañ ko fa ci yoo xam ne mënoon naa tax gréew jàngalekat yi dakk l'évidence yéen kaay moo koy xamle de xamle ni millions yoo xam ne gii nga xam ne askan wi dañ koy daal di jàmbat mu daal di wàññeeku lool yéene kaay bi ne ma Abdoulaye Wade ñu duppee ko stade boo xam ne ka ko ko duppee moo ko toroxal moom Abdoulaye Wade ak njabootam tartari leen tëxañ leen génne réew mi source aane ma loo ci mënti waxit jàppal ni stade bi daal ni ki démb xew mi rëy na ñu sargal ko wan ko mbëggeel ni sénégalais yi def Abdoulaye Wade ci seenu xol direct news daal di xamal ne stade bi day ni ki démb dippee nañ ko maître Abdoulaye Wade dëgg la waaye laaj ca bari na lan moo tax nag nguur gi waxul ci conseil des ministres ni stade bi Abdoulaye Wade lañ koy dippee ñaareel ba direct news xamal ma ni lan moo tax Karim sa wadd ak Sindiély Wade di doomu Abdoulaye Wade niki noonu soxnaam sa Viviane wala sax moom Abdoulaye Wade teewuñ ci mbir mi lan moo tax lettre de parrainage bi Macky Sall bind Abdoulaye wadd ba tey kenn mënu koo tegu gët te ba nii ci stade ba amul plaque boo xam ne direct news ne ma mën nga caa teg loxo ne turuk Abdoulaye wadd ma nga ca stade du Sénégal lañ ca bind le mandat yéene kaay xam le nii loo ci mën ci dégg laaj mën naa samp de ndax nag a protocole bu jam ñaajo dafa daal di juddu maanaam déggoo am ca jam ñaajo ngir Aïssa Wade mën a ñibbisiwaat ci réew mi vox populi daal damay xamal ni fête bi day la ko yàq bokk na ci nag garde du corps bu Erdogan boo xam ne dafa def crise cardiaque daal di faatu ca saas ci stade ba direct news ne ma leneen lu ko yàq bokk na ci leader yeewi askan wi yoo xam ne kenn ñëwul ca xew Abdoulaye Wade gi ni ki démb l'évidence na ma fitna la ñuy dund de ñoom waaye yeewi askan wi day ñu ngi fitna goo xam ni maar day taali la Ahmed ba la ñu bëgg taxawal waaye maar day taali jafe-jafe yu metti fa am tribune yéen kaay ne ma laaj bi war a samp kay moom moo di hmm. ndax APR nag ñàkkuñu élection yi ba nuppi di di ñànki ndax nag bëri ci maire opposant yoo xam ne ñu ngi di xañ ñu liggéey di defante ak ñoom tàmbalee saaga ak xastanteeg ŋàññanteeg ñoom laaj bi mooy ndax nag ñànki wuñu ci ñàkk gii le quotidien le quotidien ne ma Mamour Cissé PSD jant bi day ma ngay xam ne ni président Macky gannaaw élection législative yi la mën a natt boppam xool nag ndax régime kañ lay jeex waaye nag yeneen i jafe-jafe l'école bi mi ngi koy dund mu di ñàkkuk ban ñàkkuk laboratoire wala it ñàkku classe ngir ñenn ñi booba Mamadou Lamine Diante secrétaire général woon bu sayem sukusems ma ngay xamle ci l'info yéene kaay ne fi mu toll nii ak neexal yi leen gouvernement gi jox syndicat jàngalekat yi day la leen war moom moo di demaate classe ya waru ñoo wéyal grève bi Habib Niang ci critique yéene kaay xamle ni jàngalekat yi day la ñu war a xalaat saa si tembe mooy ëllëgu ndongo yi nga xam ne jàng mooy seen waree vox populi ne moo ne day la ngeen xamul moom moo di grève yi day waajul sax sax bay bëgg jeex ñoom syndicat gannaaw ba ñu demee ca base ba dañu ne la leen gi jox dalul seen xel bëgguñu Abdou Faty ne ñoom daanu jël seen responsabilité de waaye grève bi moom duñ ko dakkal réew mi ko diñee ne ma loo ci waxi te waxoo ger gi nga xam ne mi ngi yàq réew mi day waxoo lenn te sénégalais yi nag tudduñu te ñenn ñu dul douane trésor ak impôt waxtu woow day critique yéen kaay daal may xamal ne foofee ca camp pénal day phénomène bi nga xam ne xew na ci góor ñi góor ñoo xam ne royatuñu ñenn ñu dul jigéen ñi góor ñaa ngay defi rouge à lèvres ci tuñ góor ñaa ngay xeesal seen yaram yi weex tàll góor ñaa ngi soli baa ba ci talon ñen ñi ngir rek toppandoo jigéen ñi Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures yéen a kaay ne lii raam ci réew mi day bunte waxul te nag wala jëm fii ci rew mi day góor jigéen ñi am na ñu seenug agenda ci biir l'école yi ngir jàngal suñu doom bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi ca day faat yendu leen ak jàmm jox sa moroom président Macky Sall moom xar kanam nga wane mbégte bu ñu mënul natt ñi ñu duppelee légende di football it di kàngami football yi woon muy ci Sénégal eh, di ci Afrique wane fa it ca terrain ba ne lu nu màgget màgget dese na nuy ngalaju yu jommal gune su aane démb xew wi borom la nurool borom la tollool di turandoo ba maître Abdoulaye Wade yéenekaay bi sargal delloo njukkal président Sénégal ba woon nag ci jaar-jaaram yu bari ci fànn wu ne macha allah président Sall di président bi ëppit lu mu tabaxal Sénégal yi jumtukaay tabax na jagleel taax mu taaru maître Wade taax mu taar ma d'accordloo ñëpp ci àddina Gianni Infantino mi président FIFA football àddina bi ne stade bi yellool na dalal coupe du monde Patrice Motsepe njiital CAF moom yore footballu Afrique bi ne démb bëccëg gi bëccëg la guy dugg ci taarix ga wees na ko président ne waral mu tànn maître Abdoulaye Wade népp turandoo mooy jaar-jaari kilifa gi yéeme lool ca wuute lool ci bépp fànn Diagne Ndiaye di njiital CNOSS moom bég lool ci stade bi ay kàddoom ci l'info mu ne président Sall tabaxi jumtukaay sport bu doon ab jongante am nga bu yàgg médaille olympique le témoin wane ci xëtam bu njëkk nataalu président Macky Sall ne ko a jaaraama jokkonjool shukran albarka le quotidien gis na démb ba bëccëgu fet la woon ngir ndaw ñi président Sall liy dige moom yeneen jumtukaay Sud Quotidien ne le coup de Macky dóor ba dal na ñaari weer yi liggéey téeméer ak juróom fukk ak juróom di milliards dem ca ci caq bu taaru ba ca jam ñaaju le soleil xëy photo stade ba ak la woon ca kaw naka noonu ci ëttub stade ba naka noonu it doxalee xew yéene kaay bi ne démb spectacle dëgg la woon la tribune gis ne démb askan wi ci boppam ñoo àndoon maase doon benn amul woon parparloo wala péete Sénégal rek doon wax fu ne raaya réew mee ki mandargaam li ñuul nag nekkoon catal xew yi démb mooy bakkan gu fa rot ci ndogalu sunu borom bakkanu chef sécurité président bu Turquie wax su populi ne cardiaque mooy li ko rey donte sapeur yu Sénégal yi doon nañ fexeek sawe xew wi nag démb ak sport beeg la mu dugal ci réew mi ci mbégte ak kontaante ba fan ak ba kañ la ci président Macky Sall di profito laaj la bu yéenekaay bi di wàcc bees le vrai journal xëy laaj le vrai journal ne démb réew mi du woon saf réew moo xamante ni lépp a ngi dox ndax ba tey mu ne njeexitee nga ñaayu gayndey football yi ak stade bu taaru bi ci jam ñaajo donte nag lekkool bi ci boppam ci réew mi année blanche di at mu yàqu mu ngi koy yoot donte njëg yi te mu ngi taawee ko ko yokk ci marché yi le moom laaj ba mu def mooy mbaadu dafa am ab yëgoo di protocole de Diamniadio diggante APR ak PDS wala ci gàttal diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade stade yéenekaay moom yom ca xew ba ne démb daal feet gu taaru la woon feetu xaritoog mbokkoo ci Afrique yéenekaay bi wax it ci jëf ju rafet ji nga xamante ni Sadio Mané jëf na ko maanaam jël ku ba balom dooram teg ko ci biir musée Pape Bouba Diop rek ko wax ne Sénégal dalloon a démb takkaay bu taaru lool ci yéenekaay bi président Sall ne boobeeb takkaay di stade bi mooy doon léegi tañeeru gaynde yi ngir rëbbi fàddi ñëwaat ñu jeexale ba kàddu agent rëg-rëg layti seen mu ne rëg-rëg Modou la bëgg wala Ama balde la mu bëgg it ci làmb ji mooy def lu raw li fi ni def Sa nag mu ne ñoom duñu ko jël rëg-rëg ci boppam ay kàddoom ci sunu làmb mu naan ca bëre yëfi góor Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay